internationale. C'est l'info internationale. abonné YouTube ngir jot saa su nekk yu wér te ci réew mi ak bitim réew. ay waxtu yu néew ñoo des Sénégal war a jonganteeg Équateur ci coupe du monde bi xewee ca Qatar. muy match boo xam ne faw suñu gaynde yi am ci ndam li tax ñu mën a qualifier huitième de finale ngir wéyal lii di compétition bi ay sénégalais yu ñu dajeel ci mbedd mi di si wax seen xalaat. Euh, man Pape Pape Papis. Euh, euh, la loolu en tout cas poursuite ci mondial bi ci match boobu lay compter ana tey lañ di xaar. xaaral ma ñu fubal ko tey. ma nooy waat. bon en fait lu ñuy xaar rek je crois que comme ni ko di xaaree quoi. population sénégalaise mooy que ni mooy indi ndam bi quoi même serait-ce qu'une seule vie quoi se qualifier et puis de fait en 2022 y a monsieur Bouba Diop. bi a vu que ouais, ça coïncide avec son anniversaire de décès. waaw maanaam comme que syndicat la suñuy yenn ci ay attaquants ñu mel ni Elimane euh, nga xam ne ñu ngi koy réclamé mais itam Bamba Diagne yooyu gis nga ne tam ñooñu war nañu mën a participer. ah oui ah oui euh, euh, nañ ko loolu quoi mu jëm ñu quoi on s'entend man tey war na mën a ñëw joxe le potentiel bu mu am yëpp quoi loo xamante ni yaakaar naa war na ko mën a may ndam ñu teg loolu quoi pour am. ñu amee victoire moom dina neex loolu de waaw trop trop trop victoire moom boo ko mën a amee neex na waaw ñu sañoon ñëw jëli ndam bi ne serait-ce victoire soit. Miss. waaw Miss. Euh, kon Sénégal la ñuy xaar Sénégal yëpp moom la ñuy ah, toog ci équipe ah, dañoo bëgg Lions yi daal ñu am jom am fulla ak fayda ndax Lions yi dañoo nekk euh, Lions yoo xamante bu ñu dooree benn dañuy foog ni gagné nañ. xam nga ñu bëgg bu ñu dooree ñu gën a dolliwaat ñu gën a sàppaliwaat jumbo bi affaire bi gën a saf te moom dañuy kay ñaanal xam nga mu am ndam ñu dem final. waaw foofa toj. tey ci wàllum attaque bi ñu bëri ñu ngi réclamé joueur yu mel ni Iliman Ndiaye. Mhm. wala Bamba dañoo bëgg daal euh, mu teg li nga xam ne tey comme que sànni tàccu la. waa gis nga loolu mhm. waa dëgg la eh, da leen da leen da da leen da leen war a dugal ñoom Iliman Ndiaye attaquant yu am doole. Mhm. xam nga comme keroog rek. match bi gën a neex parce que match bi dañoo gis match bi du yomb parce que gis nga ñi dajal tey numéro 13 bi rek beneen affaire la. te ñun Sénégal duñu bàyyi noonu mu yomb ku ñu xam ku ne xam ñu ak fulla ak fayda ak jom waaw waaw dañuy ñaan yàlla rek yàlla ñu yàlla may ndam bakk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ah, ndam lañ dina am incha allahu rabbi dañ bàyyi lépp ci loxoy yàlla dina am. waaw merci beaucoup. Mame Gueye Badiane. Mame Gueye waaw Badiane waaw. dëkk Taïba Ndiaye. di liggéey Dakar gii. waaw match bi rek. ndam incha allah. xanaa di wax suñ coach bi Alioune Cissé lillahi wa rasul dañ koy ñaan ah? ah kii na ko départ lillahi wa rasul Iliman Ndiaye ah Krépin na toog ci baa bi xaar Iliman Ndiaye départ max bi amul niil gañe lan gañe sànni tàccu la ñoom nag ñooy xool duñ bëggee toog foofu wala ñu ñibbi Sénégal ñu xam waaw wasalaam Mbagnick euh, euh, match euh, tey bi Sénégal yëpp ñu ngi koy xaar. a ah, match Sénégal mën suñu sànni tàcc la. ana ah. tey ban taxawaay ngeen di xaar. Euh, ah ana ñu ñaan Sénégal rek mu am ndam bi de. Mhm. waaw parce que moom sa réew moom soo nekkee ci moom da ngay ñaan mu avancé quoi mooy yoon man moom maa ñaan yàlla am may ñu ndam quoi. tey ban ban tactique ngeen yaakaar ne peut-être tey a teg waaye demee ndax kan lañu war a tactique waaw waaw peut être yow koy xaar comme am nañu réclamé Elimane Ndiaye ne da ko a ah, indi ak yu demee ndax classe ñu mu classé barke dem rek ñu doon maximum moom baax moom nga gis même classe waaw ñooñu moom baax na moom ñooñu moom mën nañ jouer hmm. def nañ lu même temps moom hmm. waaw waaw noonu laa jàppale bu ñu amee ndam bu ah, ñu amee ndam bu ñu amee ndam moom uh-huh. wax dëgg day baax moom uh-huh. loolu laa ñaan yàlla de ko yàlla moom nee na loo koy ñaan moom dina la ko may uh-huh. waaw ñun moom loolu la ñu ñaan yàlla may ñu ndam rek waaw jaajëf. salaamaaleykum. salaamaaleykum. maa ngi ziar di nuyuwaat ziar ñëpp si marché tey mais nañ si góorgóorlu rek ñaan yàlla yàlla moom si di borom may ñu ndam bu sedd buy kenn bañ si am benn talof talof te nañ jàppe marché bi rek affaire de sportif dañ dem pour compétir compétir bi dañuy am wala ñu ñàkk nañ gën xam nañ ay sportif lañ parce que lii ñu tax jël coupe d'Afrique sport boo ñu ko yóbbu sport boobu nag sportif sportivement la sportif nag buñ koy wax ki nga xam ne day nangu défaite nangu victoire mais na ñaan ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam lu sedd kuy bépp sénégalais ñun ñëpp nañ ñaan yàlla rek bu ñu gañee ñu xam ne gañe na ñuy ñëwaat defarwaat commencé waat à jërë ngeen jëf. ndax d'accord nga si yi naan euh, saa attaque bi dugal ko ku si euh, mel waaw am na tuuti ay defaraat bi mu war a defar mais nag nit chaque jour li nga li nga def ba pare après moo lay waraan leneen si coach bu am intelligent xëñ na tamit encadrement am ak bëgg-bëggam moom moo yor dernier mot il est seul ñun suñu xalaat rek la ñuy wax gis nañ ay failles. moom xëñ na gis na ko xëñ na gisu ko ñun loolu moo ko war a yokk lu bari Iliman xale la mën na fubal bi mu duggee wane na boppam ay xale ñooy duggoo wanna seen bopp surtout ma compétition bu mel nii ay xale rek ñooy duggoo di wane seen aw ah, ah bien sûr te équipe bu Équateur équipe bu am rigueur si seen football la te ñun tamit des fois da si marché bi dafa am ay failles yoo xam ne dañ koy bàyyi te yooyu lañ war a éviter.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 moo ko tax a jóg